président de la république nag di nga wax gouvernement dinga wax euh, maanaam gouvernement euh, tey ban commentaire ngay am ci dogal bi tukkee ci conseil constitutionnel. waaw d'abord ci commentaire ñu corriger parce que du bëgg-bëggu président de la république bu ñu defee arborescence li xew mooy dafa am ay candidats yoo xamante ne dañu bind na ñoom dañu leen recalé te ni conseil constitutionnel toppatoowee wala ni mu saytoo seen ay euh, parrainage doyu leen ñu bind na ñoom dañu bëgg. ñu jaaraat si ñu arrêté processus defe naa ne fan yi gis ngeen ay vidéo yu bëri yoo xamante ne ay candidat yu ñu recalé ñoom ñoo ko waxoon ak ñoo xam ne sax jàll nañ ne condition yi élection mënu ci am report dafa war am ñaareel ba boo demee assemblée nationale parce que contestation procédure électorale processus bi yàgg naa mais tant que c'est des contestation médiatique tant que c'est des contestations de parti yoo xam ne àggul fenn fii ba léegi mën nañ noppi gëm dem mais bu ñu demee ba benn institution boo xam ne constitution de ko cité créé ko muy assemblée nationale am ci ñoo xam ne dañ def commission d' enquête parlementaire maa ngi dégg professeur léegi ne commission d' enquête bi mënul ne mais ba léegi c' est une expression de volonté politique am na ñoo xamante ne euh, état ak élection daf leen jox cër ñoom ñu ne dañuy def commission d' enquête ndaxte ni ñu saytoo li nga xam ne moom mooy euh, parrainage yi neexu leen am candidat yoo xamante ne ñi leen représenté assemblée nationale dañ ne ñoom kat. dañu bëgg ñu reporter élection yi parce que li ñu toppee seen candidature neexu leen ci wàllu binationalité ñu gis tamit ne am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom seen binationalité mën na am am na lu ko firnde te conseil constitutionnel tofer wu ko donc loolu yëpp li muy wane ne mooy processus bi bëri na ñu jàpp ne am na problème ñooñu ñu exprimer wu ñu exprimer ko nag dans le cadre d'une loi constitutionnelle loolu bu amee mooy entre acteur politique wute na wute boobu tamit dem na ba nga xam ne dafa feeñ ci institution yi ndaxte conseil constitutionnel dafa am lu mu wax assemblée nationale ne ñoom it d'accord ci loolu nag bu ñu si demee ba tey jii conseil constitutionnel jël décision ñun ay républicain lañ mel ñi ñoom maître Abdoulaye Tall nga xam ne yekk nañ fi lu ne conseil constitutionnel yekk nañ fi lu ne justice wax nañu ne ñun dañuy nangu li conseil constitutionnel wax ça s'applique à tout le monde dégg ko prendre acte deuxième chose mooy euh, report bi c'est vrai acteurs politiques yi am nañu ko laaj am na ñoo xamante ne Euh, ñoom euh, ci ci société civile lañ bokkoon daan nañ ko wax ci suuf ñii di jóg di ko dox di def yeneen ak yeneen mais li gën a am solo te ñu war ko ñu war ko constaté mooy conseil constitutionnel tey moom tamit dafa reporté report constitutionnel la def parce que bu fekkee assemblée nationale dafa wax dara euh, conseil constitutionnel ne ko d'accord ma ci waaye man ñi nga xamante ne noonu laa ko jàngatee fii ak date bi ngeen waxoon mënta ne waaye déglu bu baax baat yi mu utilisé waxul ne. joxul injonction professeur mën na xam lii injonction ak lii invité dafa ne maa ngi invité les autorités ñu organiser élection yi dans les meilleurs délais waxul dans les plus brefs délais waxul ci ni mu gën a gaawee dafa ne ni mu gaawee te gën. Mhm. ay wolof lay làkk. Mhm. les meilleurs délais ak les plus brefs délais dafa wute. Mhm. les meilleurs délais mooy ni mu gaawee te gën. ni mu gaawee te gën nag dafa laaj li président Macky Sall waxoon mooy ne nit ñi toog waxtaan parce que acteurs politiques yi ñoo jote bi egg ba ci biir institution yi donc ñun dañu am mécanisme de régulation boo xam ne depuis 1960 mi ngi dox mooy li nga xamante ne mooy dialogue nekkul ci constitution mais acteurs yi nangu nañ ko. su ma déggee ñenn ñi naan noo man duma ma dem dialoguer alors que yow bi nga amee problème am amende am lu justice wax ci yow dialogue moo ko didi donc waruñu bàyyi loolu nga xam ne mooy dialogue. donc li ma jàpp tey mooy. Mhm. conseil constitutionnel nee na. Mhm. loi bi ni nga xamante ne noonu lañ ko tëggee moom ànd ñu wax ne revirement de jurisprudence tamit professeur mi ngi fi parce que li ñu mën a wax mooy. conseil conseil li mu yàgg wax mooy le constituant il souverain. moo xam assemblée nationale. mais mais monsieur le ministre moo xam euh, d'accord mais monsieur le ministre. allo allo monsieur ah, ah, ministre. oui waaw. donc dafa am laaj rek bu ma lay laaj nga tontu ma ci tont bu gàtt si vous plaît parce que dafa am ñeneen ñu nekk ci ligne bi provoqué nga dëgg la maître Tall provoqué nga aussi Khalifa Sall dégg nañ ko mais li ma bëgg ñu ñëw ci mooy euh, dëgg la. conseil constitutionnel daf ni nañu ko def ci app bi gën te gaaw noonu nga ko waxee ci olof non mm-hmm. waaw alors app bi gën ci gaaw dafa nekk ci seen loxo dafa nekk ci seen loxo yéen yéen yéen yéen autorités yi parce que loolu la wax voilà léegi lan ngeen ciy wax askan wi ci loolu. waaw mais li ñu ciy wax askan bi li ñu ciy wax askan bi euh, Papa Ngagne luy simple la mooy problème bi li ko indi ay acteur politiques yu jubóowul lañu. problème bi li ko indi mooy acteurs ay yu jubóowul mu mujj mujj ci li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, loi constitutionnelle boo xam ne conseil constitutionnel ne ni ñu ko defaree baaxul mais conseil constitutionnel li mu wax mooy yenn autorités yi war a organiser xool leen ni mu gën a gaawee ni mu gënee mais ni mu gën a gaawee ni mu gënee mooy ñu toog waxtaan mooy dialogue mooy li nga xamante ne moom la nit ñi di bañ te loolu moo tax ñun ñu am démocratie parce que li ñu mënul def moo xam ci loi la parce que loi tamit yenn saa yi mu ànd ak doole ñii ànd ñii bañ a ànd parce que li ñuy wax keroog ci assemblée nationale lan la ñu wax nee nañ assemblée nationale gendarme yi policiers yi war ñu fa dugg mais bu amee ñoo xam ne dañuy yéeg di damm micro yi di yéeg ci kaw table yi ñii di bañ ni ñii di voté ñii di def des obstructions par euh, des questions préalables yu mën a jeex. mais loolu de gestion politique. alors d'accord d'accord d'accord d'accord d'accord mooy. mooy waxtaan. ok président de la bi nga xam ne. waaw allez-y. ma ne président de la république bi nga xamante ne moom lañ delloowaat kàddu gi ndaxte conseil constitutionnel. Mhm. def ko injonction. Mhm. wax ko ne na nga organiser date sàngam. waxu ne ko nangam daf ko ne. d'accord parce que bu ñu jaawlee décision ak considérant considérant mooy ci li mu sukkandiku. décision mooy li nga xam ne moom la dogal moom la àtte li mu wax mooy. delloo na ko mu xool mu organiser ci ni mu gën a gaawee waaye tamit ci ni mu gënee. donc loolu ci lañ nekk te loolu moom mooy dialogue bi président de la république woote. Mm. républicain yi nga xam ne nangu ni ne Sénégal démocratie dafa war a continuer li nga xamante ne moo am mooy li ñu daan def di di di wut ay force spéciale di di di di yàq ñu taje ak waxtaan. orientation yi naka a demee. d' accord dans les trois prochains mois wala dans les prochains jours. merci beaucoup yenn acteurs politiques yi ñoo xam ñu déggoo ci. merci def ko acté ko bu ko defee mu mën a nekk. merci jërëjëf jërëjëf le ministre Abdou Karim Fofana. na Macky Sall génn wax ak peuple si euh, léegi euh, dialogue bi moom fa